waaw salaamaaleykum wa rahmatulah mu bu mel ne ñu ngi taxaw ak Oustaz Aboubacarine fay yore kaddu ndaw ñi di wax si turu ndaw ñi tabaarakallahu kon Oustaz bu mel ne julli gi yàlla dogal na amal nañ ko si jàmm ah, ban message ngay laasa ndaw ñi incha allah ak waa penc mi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Oustaz Dabakh ñu ngi lay ziyaara di la baalu ak di ñaan yàlla yal na yàlla may ñu teewee ko ay déwén yu déwén yu bare bare bare ah di wax ne lii kat ay jullit yu dëkk ñu doon benn mooy doon seen ndam ñu doon benn mooy doon seen njëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne aljamaatu rahma wal furqatu azab bu ñu dajalowee doon benn rek yàlla dafay def ay njëriñ si suñu biir waaye bu ñu tasaaroowee rek yàlla dafay indi ay ci suñu biir lii lu ko gën lu ko gën a neex lu ko gën a màgg asamaan bi sax dafay bég yàlla dafay bég malaayka yi dañuy bég ñi nga xamante ne ñooy saalixiin yi dañuy bég kon li lañu mooy li nga xam ne moom la ñu mën a euh, yàlla kenn ku nekk jaamu yàlla ci sa morom kenn ku nekk jàppale sa morom suñu dajaloo fii nag ak suñu booloo dañ ñu si jàppale ñi ñu si jàppale mooy suñuy mag uh-huh. ku mel ni président sëñ Baara Diop ñoom Mamadou Sarr ak ñi leen jàppale ak euh, Aline Badara Manga ñoom it Aboubacar ay euh, nit lañ yoo xam ne saabu leen pénc bi soxlaa ñu fàtte seen coonoy liggéey waaye fàtte seen i nelaw kon loolu mooy mën a tabax société te société dafa am lu ñuy wax cohésion sociale maanaam nit ñi dañuy jaxasoo jaxasoo boo xam ne ay njariñ lay jur yal na yàlla kattanal ñu si kattanal si mboolem jullit di leen jaajëfal li ngeen di liggéey yal na yàlla def si barke defal ko mboolem jullit salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Oustaz Aboubacry moo yor kàddu ndaw ñi moom jërëjëf kon si kàddu yi kon bu ko defee ñu ngi taxaw ak euh, imam Pape Ibrahima Sarr nga xam ne macha allah kenn dootu ko présenté fii nga xam ne lu am solo la fi wax sànq imam ginnaaw. waaw.